asalaamaaleykum euh, sénégalais sénégalais asalaamaaleykum les sympathisants et alliés de Gëm sa bopp asalaamaaleykum waa coalition Bougane 2024 euh, tey am ngeen une mauvaise nouvelle c'est vrai parrainage bi éliminé nañu mais je suis sûr que c'est pas une surprise pour vous je suis sûr que xaaroon ngeen sant yàlla am na ñeneen ñoo xam ne pour éliminer leen comme vous le dañ leen yóbbu kaso ñooñu man gënuma leen am na ñoo xam ne tey jii taqale nañ leen ak seen njaboot loolu yëpp di ay pexe yoo xam ne ñu ngi koy teg ci réew mi boobaak léegi mais permettez-moi de remercier et de féliciter tout le monde ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci gëm sa bopp ñëpp ñi nga xam ne ay alliés gëm sa bopp lañu vous avez fait ce vous avez travaillé même nos détracteurs ñi nga xam ne ànduñu ak Bougane nangu nañu ne yéen waa gëm sa bopp liggéey ngeen maa ngi leen di jaajëfal maa ngi leen di sant di leen wax ne Sénégal mérito na seen taxawaay Sénégal mérito na force ak engagement bi nga xam ne am ngeen rassurez-vous li des ci liggéey bi moo gën a metti li des ci liggéey bi tey jii la war a tàmbali mooy lan sauver le Sénégal mooy lan ngeen taxaw pour que lii ñuy xeex muy système bii fi nekk ñu mën ko fi jëlee rassurez-vous plus ma Sall me fera de l'injustice plus ce sera le carburant mooy nekk carburant bi may dolli engagement ak motivation tey laa gën a taxaw pour xeex pour yéen les Sénégalais Bougane Gueye li mu doon xeex démb tey ji lay continuer di ko xeex ensemble on va dégager le système et les hommes qui animent ce système rassurez-vous ñun ñëpp nañu taxaw suñuy doom jar nañu ko ma ci Sall li mu bëgg mooy won sénégalais yi ne leen toog muy dox mën naa nekk man ma bëgg gëmloo sénégalais yi ne leen liggéey mooy tax nit génn ci ñun ñi doon liggéey ñun ñi nekkoon ci terrain bi non ñun. non ñun mënuñu am dara mais ñi toogoon doon nelaw seen kër sénégalais yi xamuñu leen non ñooñu mën nañu jàll parrainage c'est pas grave rassurez-vous je serai avec vous sur le terrain nous allons combattre l'injustice dans ce pays yal na yàlla sàmm Sénégal yal na yàlla taxawu Sénégal jóg leen liggéey bi mu ngi ci kanam pour dégager le système et les hommes qui l'animent jërëjëf